balaa ngaa ndogu la ngay wax. aywa <laughs> jiite aywa da ngeen bañ a tiñal mag. laaxu mag kasum kasum kasum xaw ma. li ci des mooy charia. ah. <laughs> ah. ngay wax waxatuma dara. balaa ngaa ndogu la ngay wax. xool. <laughs> li ngay wax laay wax. dañ dañ nekk di def pétition quoi xam nga dañ nekk ci weeru léegi dañ doon laaj balaa ngaa ndogu la ngay wax. ay ay waay dañ doon laajte balaa ngaan dañ doon laaj balaa ngaan ndogu la ngay wax ah balaa ngaan ndogu la ngay wax aywa jiite aywa bañ a tiñal mag xoola inspiration bi dem na damaa nekk di joué nii ci kaw seen bi bàyyi leen li ngeen def waay ah leen li ngeen def ku yaakaar ma sa la man du ma esclavage yu kenn waaw waaw dama doon laaj balaa ngaa ndogu la ngay wax. waxatuma dara. allahumma la. non non non man wooruma sax ren ren wooruma. non non dina ku ne seet li ka neex rek mu def ka man koor gi aw ma ci xalaat. ma li ma waay ngir yàlla man dama woor. kii wala yow xoolal ma sama compte ay kala boobu man laa gën a tar. <laughs> mukk du ma wax de. allahu. foofu laa yem allahumma kasum xaw ma. <laughs> foofu laa yem. allahumma la. allahumma la kasum. waaw foofu laa yem. <laughs> déedéet. foofu laa bismillah. xëdd. waaw fa laa yem. dafa am benn pétition bu ñu nekk def dañoo bëggoon nga wax ci quoi. par exemple par exemple nit ki balaa ngaa ndogu lan ngay nit ki balaa ngay ndogu looy wax. waaw boo tee daan na ma quoi. ah. it boo doge booy dog. allahumma. allahumma laka sumtu. faxfir lii maa xaddamtu du loolu waaw après waaw lu ci tegu loo ci bëgg tegga teggati man fa laa xam de parce que problème bi mooy xam nga dèjà xiboon laa aay bi di ko rek di ka taay ba xam léegi da ngeen di àllaxuma la ko tontu rek yéey xam laaj ko Naya Naya balaa nga ndog li wax parce xale yëpp ñu ngi wax ci yow <laughs> li wax laay <laughs> yow lan ngay wax. man allahu man tamit allahu ma wax. ah loo ciy teg li ciy teg rek laa ciy teg. ma la ko sumtu man tamit allahu ma sumtu lay wax. man tam li nga ciy teg laa ciy teg ji. baal ma loolu man. lu ñëpp di wax laay wax. bisimilah laay wax allahumma laka sumtu wa bika ah, li wax laay wax li ngay wax noonu rek laay wax. yeggali ko rek soo ko yeggalee ni ñu ko déggee noonu laa koy waxee. <laughs> Bachir baal ma waay. daal di démb dañoo wër Sénégal yëpp kenn mënu ko wax. non man lan lan ci noonu. ba balaa ngaa ndogu la ngay wax. wala xam nga lan la. <laughs> <laughs> xoolal kii di mbir fee. allahumma li bi li weer ba laxas moom li bi lan dëgg dëgg barki alxuraanu karim bu ñëwee ci yow. da ngay commencé dëgg yow kaw yi yow da nga am jamono. waaw. lan la yow. balaa nga ndog la nga yow. <laughs> li ñu war a wax. <laughs> yow xam nga ko yow. allahuma laka sumtu. lan la ñuy wax. man li ñuy wax mooy allahuma laka sumtu. lu ci topp. wa bika wa bika amantu. wa ala. yeggalil wa bika amantu. waaw wa bika amantu bi am na lu ci teg teg. ah li ci des mooy charia. bëgg ay bëgg mooy ah. ay ma nii sax daal di log kafe nii xam nga daal di yëngal boobu daal di cee. léegi balaa ngaa xëdd la nga yor balaa ngaa na caméra ma ni fay na. waaw non caméra kase moom barki yàlla caméra man kase caméra ma booy jéew ma damaa jéewul booy bàyyi ma booy ñànku lañ def caméra kase démb boo xam ne. damay déglu jalo ci wax li ma ci wax bari na eh li ma ci wax yow mën naa dinaa saboté kese lañ ma nar a def daal xam naa liñ nar a def war nga déglu waaye damay déglu fii ala ma ma pare yow gis nga yow ba ci rusul lay wax bilaay du wax yow doo ma kase bëgg ndogo bon man moom ndogo moom man man am café rek tàndarma waaw nga génne benn bi waaw nga jox ko moom muy deux. mu des biir bi tàng rek ma dem julli ji après jaan. ba doon teg loolu. xanaa reer ay ceeb ak yooyu. balaa ngaa ndogu la ngay wax. aywa ji te aywa aywa da ngeen bañ a tiñal mag laaxu mag kasum kasum kasum kasum xaw ma. li ci des mooy charia. <laughs> ah. ngay wax waxatuma dara. ba balaa ngaa ngay wax. xool <laughs> li ngay wax lay wax. balaa ngaa ndogu la ngay wax. aywa jiite aywa aywa da ngeen bañ a tiñal mag laa ko mag kasum kasum kasum kasum xaw ma. li ci des mooy charia. ngay wax waxatuma dara. ba balaa ngaa ngay wax. xool li ngay wax laay la ngay wax. aywa ji te aywa aywa da ngeen bañ a tiñal mag laa ko mag kasum kasum kasum kasum xaw ma la ci des mooy charia ah. ah ngay wax waxatuma dara ba balaa ngaa ndogu la ngay wax <laughs> li ngay wax laay wax balaa ngaa ndogu la ngay wax <laughs> aywa jiite aywa aywa da ngeen bañ a tiñal mag laa kasum kasum kasum kasum oh. xaw ma. li ci des mooy charia. ah. ngay wax waxatuma dara. la ngay wax. li ngay wax laay wax. balaa ngaa ndog la ngay wax. aywa ji te aywa aywa da ngeen bañ a kasum kasum kasum kasum xaw ma. ci des mooy charia. Ah. ah. ngay wax waxatuma dara. la ngay wax. li wax laay wax. balaa ngaa ndogu la ngay wax. <laughs> aywa jiite aywa aywa da ngeen bañ a tiñal mag laa ko mag kasum kasum kasum kasum xawma li ci des mooy charia ah. <laughs> ah ngay wax waxatuma dara balaa nga ndogu la ngay wax <laughs> li ngay wax laay wax